jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 euh, ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen di jaajëfal mbokk yi ñu dellu am mbégte daal di dellu si ci seen émission pencum réew mi. comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen euh, samedi bu jot ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck euh, du Diaw jàll moo nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité Abdoulaye Néné maane moom mooy coordonnateur de la jeunesse de Bokk Gis Gis nekk membre tamit comité directeur nekk membre ci secrétariat exécutif national bu Bokk Gis Gis maa ngi lay nuyu maane maa ngi lay fay Abdou Khadre di la invi di la remercier ci invitation bi du nuyu. les auditeurs de mi FM ñu ñuy suivre ci rajo bi ak euh, sur euh, les plateformes digitales. Euh, Abdoulaye Néné Mané yow nga bokk ci bokk gis-gis bu Pape Diop ñu fas yéene waxtaanee bokk gis-gis ak élection locale yi gisoon nañ ne yéen bokkoon ngeen ci benn coalition wàllu Sénégal ak PDS PDS ku xam Pape Diop xam ko ak PDS rawatina ci wàllum ànd ak coalition seen ñoom. Euh, da ngeen àndoon ba ci biir ngeen xàjjali ko lan nga jàpp ne moo ko waral. Euh, maa ngi lay remercier Abdou Khadre. donc euh, li nga wax effectivement PDS daanaka bokk gis-gis ak PDS dañoo nekk ay alliés naturels. Mm-hmm. waaye xam nga ànd tam également boo leen di ànd ànd bi dafa war a laloo ci respect ànd bi dafa am ay jéego yoo xam ne ñoo ko war a lal. donc euh, lu ñu waxtaanee woon pour euh, ci biir ànd bi mooy dañu dégagé woon ay profil si je prends le cas de de la ville de Dakar pour exemple dañu dégagé ay profil pour ñu xool ci coalition bi kan moo amoon le meilleur profil pour diriger euh, la ville de Dakar man je me rappelle demoon naa benn réunion boo xam ni waa département de Dakar ñoo ko organisé woon au niveau de la permanence du PDS fan la ñuy décliner par exemple le porteur robot du meilleur candidat pour la coalition bu ñu doon liim man bu ñu liimee ba jeexal dama naan y a pas photo kii Pape Diop rek la mën a doon parce que critères yu ñu lim yëpp moo ngi woon nekkoon ci Pape Diop mais à ma grande surprise. non foo foo teg ne mooy euh, mooy yoroon le meilleur profil. mais naturellement xam nga ñi ngi jóge woon ñi ngi nekkoon ak euh, PDS jusqu'en 2012 en 2009 élection amoon na fi élection amoon na fi mu am benn campagne médiatique boo xam ni. lu l'opposition d'alors mooy ñu ngan ko ñu jàpp ñu yor nguur gi présentement ñu defoon benn campagne diabolique sur Karim Wade ba ñëpp jàppoon ni que vraiment Pape Diop dafa nekk di liggéeyal Karim Wade donc ville de Dakar bi dañuy xeex PDS dafa nekk di xeex pour installer Karim Wade pour préparer la dévolution monarchique loolu la ñi ñi dugaloon ci xelu Dakar waay ba Khalifa Sall moom sax ci boppam bu mu doon baat campagne taxawoon na ne Pape Diop gaa vraiment liggéeykat la waaye dañ ko fi bëgg a jëlee teg fi Karim loolu moo tax sénégalais Dakar waaye sanctionné un peu Pape Diop mais pas à travers vraiment ses réalisations dañ ko sanctionné woon parce que am na loo xam ne dugaloon nañ ko ci xelu Dakar waaye léegi nag loolu bu amee yaakaar naa ni bu ñu demee ba di ànd ba di laajaat mairie Dakar dañu waraat xool démb kan moo fa nekkoon ak lam fa defoon. waaw non mais mais mais Abdoulaye euh, Néné Mané Pape Diop bi nekkoon 2009 mën naa bañ a nekk Pape Diop mi nekk 2021. waaw ci ci ci dayo politique. waa ci dayo politique. ci dayoo politique waaye kattan baa ngi fi mën-mën baa ngi fi xel baa ngi fi. waaw mais politique bu ñu koy wax majorité la euh, ay militants la. wa mais mais la mais base la dañu ànd ci coalition. bu ñu àndee ci coalition mu am loo xam ne amoon na démb te Pape Diop moo nekkoon maire ci ci ci parti démocratique sénégalais tey àndatuñu ak ñoom ñu dem ba di ba di def une coalition pour ànd jëlaat mairie bi yaakaar naa ne dañu war a xoolaat xool démb fan la ñu bàyyoon Pape Diop ñu jéem a xool jébbal ko sax pour réparer au moins cette injustice là. parce que ñun bu ñu nee PDS am na candidat on a demandé à connaître qui est le candidat du PDS parce que proposition la dañ nekkoon ci réunion. Mhm. réunion bi bokk gis-gis am candidat muy président Pape Diop. mu proposé ko ngeen proposé ko. yaakaar naa ni PDS également munoon na ñëw ne diw mooy candidat wu PDS. keneen ci keneen ku nekk ci coalition également am na liberté wu ne mhm. man diw mooy sama candidat mhm. mais munoo ñëw ngeen ne da ngeen ni ànd nga ne diw mooy suñu candidat ñun PDS te mooy candidat coalition bi loolu je pense que manque de respect daf ci ah, am. mais mais mais yéen euh, PDS kan la ñu waxoon mooy seen kan ndax man damaa dégg ñu ne yéen PDS euh, dafa lànkoon a bañ a wax kan mooy candidat am au niveau de Dakar. mais PDS barki dem moo Ndiaye la wax kan mooy candidat am au niveau de Dakar. léegi bi ngeen defee proposition lan moo tax PDS defuñu woon seen proposition ñoom. ah mais loolu nga dem laaj ko waa ñoom. ñoom dañoo deful proposition ba pare wax ne ñooy jiite coalition. très bien. ba pare nëbb ki koy war a jiite. très bien ni la fa demee. léegi nag ñun nag suñu fulla moo tax ñu génn parce que boo gis-gis mën na demal boppam ñun demoon nañu élection en deux mille 2014 ñu am pratiquement 29 mairies am plus de cent conseillers donc duñ parti bu ndaw. am gagné woon ngeen 29 mairies mais 29 mairies. Dakar à part taxaw taxaw taxaw taxaw dakaar ak euh, Benno Bokk Yaakaar Bokk Gis-Gis moo fi am moo fi am moo fi am moo fi am euh, euh, mairie dans la dans le département de Dakar. boo demee dans la région de Dakar nga jël par exemple dans le département de Rufisque on a on a euh, une gagné une mairie avec euh, le, la mairie de Mbao avec Ablaye Pouy boo demee au niveau de Rufisque Est également nous avons gagné la la la la mairie sous bannière de sous la bannière de Bokk Gis Gis avec Albendoy donc Bokk Gis Gis une bonne représentation dans les collectivités territoriales te moo demaloon boppam boo xoolee en 2012 bu ñu dem élection à travers une très grande coalition avec de très on s'était retrouvé avec cent quatre-vingt-quatorze mille voix mais bu ñu ñëwee en 2014 ñu dem cent ak à cent quatre-vingt-seize mille voix d'où une augmentation de deux cent mille voix xam nga loolu une augmentation de vingt mille voix xam nga loolu mooy parti bi am na fi mu nekkoon am na fu mu jëm. maanaam a ngi màgg. moo ngi màgg. d'accord léegi euh, Abdoulaye Néné Mané yow nga bokk ci euh, secrétariat euh, exécutif national bu bokk gis-gis. léegi yéen man liir naa ci presse bi ñu ne li tax seen xaajalikook euh, PDS ak seen génn ci wàllu Sénégal mooy da ngeen a proposé woon loo xamante ni lu jéggi dayoo la bëgg ngar dajoo presque euh, euh, grande ville yi ak communes yu baree baree ah, bari déet déet loolu amul loolu xaw ma fi nga ko déggee waaye loolu amul PDS man benn firnde rek benn rek benn exemple rek laay joxe benn ñu ñu ñu ñu ko foofu yow gis nga ñu nekk ci coalition boo xam ne ñoo ngi ànd ak PDS ànd ak Pape Diop ànd ak ñeneen parti ñi ne dakaar ñu seppi Pape Diop kan moo war kan moo yelloo dakaar war nañ fa teg keneen ku dul Pape Diop ci coalition bi mais ñëpp jeunesse su PDS bi ñëpp ñoom ci seen biir xel jàppoon nañ ñu ko ni c'était Pape Diop mais bu ñu demee à notre grande surprise ñu ne PDS day am candidat. loolu nangul nañ leen ko Pérez mën a am candidat mais mu proposer candidat am après ñu dégager profil yi xool ki yee la ki a le meilleur profil mais dañu ne candidat wu mooy candidat wu coalition bi. loolu par force ñu xam ne nag lii ànd naaw la nekk ko fi. est-ce que euh, manque de respect la wala manque de considération wala sabotage. non man jàppewu ma ko manque de respect wala manque de euh, considération parce que. mais est-ce que euh, peut-être loolu laa ko mën a jàppee sabotage sabotage. dem nañ fi ne Ablaye Wade mooy tête de liste après ñu dem ba ci biir ñi ne dudd Wade loolu c'est du sabotage pour moi. mais yéen euh, yéen da ngeen di demee ci élection locale yi si bañeeru bokk gis-gis. bañeeru bokk gis-gis ñun dañu am dañu nekk parti bu am fula xam nga nee nañu parti yu bëri dañuy dem gangréné wu nekk ci gannaaw yenn parti yi pour mën a am dara ñun ànd mbooloo mooy idéal bi waaye bu mënul ne ñun am nañu fula demal suñuy bopp. te am nañu une représentation dans pratiquement une centaine de ville yoo xam ni suñuy suñuy candidat am nañu candidat foofu dans plus de quinze départements am nañ fa ay candidat donc loolu également pour wane dayoo parti bi ak parti boo nekkee boo nekkee parti bëgg bëgg a yor euh, euh, diriger réew mi ëllëg da ngay natt sa bopp ci élection donc ça c'est une occasion pour nous de ñu xoolaat bokk gis-gis fu mu fu mu fu mu jógee ak fu mu toll tey. mais xam nga euh, Abdoulaye gis nañ tamit ci bokk gis-gis boo xoolee presque élection locale yi ñi dem ñëpp demuñu ci ay parti politique mais ci ay coalition lañ demee mooy xam coalition ay Yewwi wala ay euh, wallu Sénégal wala Benno Bokk Yaakaar ak wala ay gëm sa bopp élection yu yi euh, élection yi ñu dëgmal mais yéen dama gis ne yéen dangeen dem ci yéen seen bañeeru parti di bokk gis-gis dañoo dem suñu bañeeru parti mais ñàkk pexe wóolu sa bopp rek bëgg natt sa bopp rek. xam ni parti bu am bu organisé nga am parti bu responsable nga am nga xam ni am nga ay respo ay ay responsable politique yu am dayo yu nekk fu njëkk mais bien sûr bien sur kan moo demoon élection am 29 mairies plus de 700 conseillers dem élection 2017 am 5 députés war nga mën a wóolu sa bopp. waaw non mais euh, Abdoulaye yow yaa ngi wax mille 2014 2014 ñun ñëpp xamoon nañ ne euh, boo ko gis-gis. amoon na benn dayo politique bëri woon na ñoo xamante ni bokkoon nañ ci. mais taxawaay boobu bokk gis-gis amoon 2014 est-ce que ba léegi moom la am ndax 2014 ba léegi politique bi ngeen waroon a def. Euh, wër Sénégal def ay tournée installé ay base est-ce que lu taxawaa liggéey boobu yoon defoon ngeen. def nañ ko man sama jëmm bopp ànd naa ak président Pape Diop ñu dem def tournée dans l'intérieur du pays nekk ci biir àll bi di fanaan ci àll bi def ay semaine loolu def nañ ko waaye ñun nag peut-être xaw ma ndax nattu la ñun suñu parti pour ñun jëf ji mooy le terrain mais bokkuñu ci parti yoo xam ni dañuy def seen promotion à travers les télévisions à travers les réseaux sociaux alors que boo demee à la base y rien ñun nag c'est le contraire ñun doo ñu dëgg peut-être ci euh, télé yi lu bëri doo ñu dëgg ci rajo yi lu bëri mais boo demee ci gox bu ci gën a sori ci Sénégal danan la naan bokk gis-gis am na fi représentant donc yaakaar naa ni loolu moo am solo te liggéey boobu moo gën a am solo pour que bañ bëgg bëgg a gañe réew mi ëllëg. mais nekku leen bokku leen ci opposant yi nga xam ne dañuy noyal. lan nga tuddee noyal. mooy opposant opposant yi nga xamante ñoo war a tax opposant yi nga xamante ni da ngay taxaw di def ay proposition euh, di di di lànk yenn yi mais mais mais oppose opposant yoo xam ne tey presque yow du ñu la faral di dégg doo faral di ñaawlu li nga xamante ni tey moom ah, déet déet dama la laaj benn opposant ngeen ma ne ñun benn opposition moo am benn opposition moo am peut-être nit ñi ñooy jëm a xaajale di am na opposition bu radicale ak benn opposition boo xam ni bu moins radical loolu communication ba la pouvoir bi di def pour un peu jaxase opposition bi benn opposition moo am ak benn forme d'opposition moo moo moo am mooy ànduma ci ak ñi ma jaamarool ànduma ci nu ñuy doxalee réew mi ma indi contre proposition Pape Diop noonu lay politiquer doo ko dëgg ci saaga doo ko dëgg si naka sudul noonu doo ko dëgg ci lu ñàkk fayda waaye lépp loo xam ni dana jëmal réew mi kanam mu nekk intérêt sénégalais bu ci waxul verbalement dana jël bikom mu bind benn article wala def benn communiqué wax ci. d'accord mais Abdoulaye Néné Mané bokk gis-gis est-ce que amul problème mu euh, structuration maanaam taxawal cadre yoo xam ne ndax yéen parti politique nag dañuy wax ne jeunes yi la. ak cadre yi ak jigéen ñi est-ce que réellement bokk gis-gis am na ay cadre kuréelu cadre yoo xam ne tey vraiment seen liggéey ci parti bi ñoo koy def est-ce que tamit am na ay ndaw ñoo xam ne seen liggéey ci parti bi seen taxawaay ak kuréel bu ëmb jigéen ñi seen liggéey ak seen taxawaay mais lu lépp day fekk Pape Diop euh, man leen a gunge est-ce que lii ma la wax nii euh, lan nga si expliquer. waaw xam nga euh, parti boo gis dana am ay haut dana am ay baax ñun am nañu parti bu organisé. li ngay wax ni structure yu yu ngay wax ni structure bu ci nekk am na koo xam ni dënk nañ ko ko donc ñoom ñoo ngi doxal seen wàll ci parti bi. mais des na wala. mais des na loolu dama ciy d'accord ak yow des na yaakaar naa ni bokk gis-gis bu ñu mutualiser woon toutes les forces nekk derrière le président Pape Diop buux ko fu ñu fu ñu bëgg a jëm dinañ fa. yegg bàyyi kenn tendance bi. bàyyi tendance bi waaw. Mhm. waaw d'accord euh, dañu gis ne Pape Diop dafa nekk euh, tête de liste bokk gis-gis ci ville de Dakar ci élection yi nga xam ne moom la ñu euh, moom la ñu dëgmal euh, mais seen liste euh, waxuñu leen rejeté wuñ ko wala recalé wuñ ko. no non non rejeté wuñu suñu liste recalé wuñu suñu liste. et c'est là fu may profiter ci antenne bi pour féliciter euh, l'administrateur de notre parti monsieur Salam Bass euh, le chargé de communication monsieur Moussa Diakhaté Pape Diop lui-même le président Pape Diop lui-même ñoom ñëpp ils se sont mobilisés avec le coordonnateur départemental du parti au niveau de Dakar monsieur Bara ñoom ñëpp ñoo boole seen doole ànd liggéey pour que bokk gis-gis yaa ngi dégg Moussa Diakhaté bu muy dem di déposer liste yi préfet bi daf ko féliciter ndax liggéey bi nu mu rafetee nu mu jaaree yoon waaw je pense que loolu expérience ak maturité moo waral loolu. mais est-ce que du pari risqué ci Pape Diop. mu mu mu jiite liste ville de est-ce que mënutoon a jiital euh, keneen ci Dakar bañ a dem. moom bañ a dem lu tax loolu lu waral loolu yow nga am candidat boo xam ni moom moo gën ci candidat yu ñu fi tudd nga am candidat boo xam ne am na benn passé boo xam ne benn passé glorieux boo xam ne bu ñu ko tegee xamal ko Dakar waay parce que dama jàpp ni communication ban passé la danaa fa ñëw xam nga communication dafa garaaw communication dafa garaaw trop parce que da nga nekk maire fenn nga jël communication dugal ci xelu sénégalais yi que ni lii ak lii ak lii maa ko fi def communication mën na liggéey loolu parce que communication moo tax Pape Diop perdre mairie de Dakar en 2009 communication encore une fois moo tax Pape Diop ñàkk mairie de Dakar en 2009 parce que loolu communication boobu la opposition bi porté woon ne Karim Wade lañ fi bëgg a teg pour une dévolution pour préparer la dévolution monarchique Pape Diop nag bu muy nekk à la ville de Dakar li mu fa def ba léegi laa la wax bi mu fa jógee 2009 ñoo ngi tey 2021 loolu moo fa nekk ba léegi dëmb rek maa ngi doon suivre benn émission boo xam ni il fait euh, benn émission boo xam ni y avait quelqu'un qui fait partie du conseil municipal de Dakar mais il est il est dans le camp présidentiel mais loolu bu mu koy wax waxu ko parce que dafa bëgg a euh, euh, def defal Pape Diop promotion non daf ko wax en tout objectivité en toute logique ne moom 2009 bi mu ñëwee ba léegi musuñu ko woo ci benn inauguration poste de santé wala centre de santé wala benn réalisation boo xam ne ville de Dakar def na ko. mais mais mais la def Dakar nag maa ne. ah mais Pape Diop expliqué ñu Pape Diop def Dakar Pape Diop lu mu def Dakar ah, bu defoon Dakar dara. ah mais bu defoon dakaar dara. waaw bu defoon Dakar dara 2014 élection euh, locale yooyu danañ ko dénkaat ville de Dakar mais léegi nag moo tax ma ne la erreur bi ci ñun la parce que li waroon ci communication pour xamal Dakar waay que Pape Diop moo gën ci mbeeru dakaaru Ndiaye. defuñu ko woon benn bi mooy Pape Diop bu muy ñëw en 2002 mille 2003 bu muy ñëw à la tête de la ville de Dakar mi ngi fekk à la ville de Dakar un budget de huit milliards mu jàpp ne ak huit milliards mënuñu développer une capitale qu'est-ce qu'il a fait mu dem waxtaan avec les euh, les les les agents des impôts et des domaines le directeur d'alors qui était Amadou Ba bi ñu waxtaanee mu ne ko man dama gis ay niches yoo xam ni mën nañ ko exploiter. pour dooleelu keesu ville de Dakar ci la Amadou Ba ne ko man j'ai pas les agents qu'il me pour faire ce travail là mooy ñu revoir encore euh, l'amélioration des impôts de la ville mais bi mu ko waxee loolu Pape Diop recruter cinquante agents informaticiens avec un équipement informatique de deux cent millions ñu jox leen ko mais ñooñu bu ñu demee au niveau des impôts ñu dem sur le terrain def seeni liggéey budget bi dafa jógee huit mu ñëw ci 16 première phase jóge ci 16 Pape Diop bu mu fay jógee mi nga bay 36 milliards ci budget boo xam ne 8 milliards la woon Mamadou Diop nekk na fa 15 ans 15 ans budget bi 8 milliards 8 milliards la ko bay Pape Diop ñëw jëlee budget bi de 8 milliards yóbbu ko 36 milliards ba pare mu mettre en place. mécanisme yoo xam ni budget bi day yokk rek en crescendo budget bi chaque fois dafa war a day day yokk parce que mécanisme yooyu. par ñoom ah, amoon na budget mais lan la liggéey Dakar. mais loolu maa ngi ñëw mais loolu liggéey la. waaw noonu loolu liggéey la mais xaalis boobu lan la ci def. mais danaa danaa ci ñëw parce que xam nga xam nga réalisation dafa bëri façon dafa am ay réalisation physique yoo xam ni mën nañ ko gis teg ci suñu loxo mais dafa am lu gën a ëpp am solo loo xam ni mooy mooy waral mooy indi réalisation physique yi nga gis. mooy koppar gi ñu koy amee nu ñu koy lijjantee pour mën a def ay réalisation ni mu ko defee mooy déjà jox naa la première phase boo xam ni c'est son intelligence en tant que homme d'affaires moo ko may mu dem xool niche yoo xam ni ville de Dakar mën na ci capter ay fonds pour renforcer ses caisses moo tax ma ne la budget bi jógee na de de huit milliards dem ba trente six milliards pratiquement daf ko quadruplé en un mandat un seul mandat Pape Diop a fait un mandat la ville de Dakar nit ñi dañ koy fàtte benn mandat la fa def. def fa def fa loo xam ni nit toog na vingt ans à la ville de Dakar def ko fa. bi mu jógee ci bi mu jógee mais fi lu fi def. bi mu jógee ma damay ñëw da je je vous parle des non visibles d' abord balaa may ñëw sur les réalisations physiques bi mu jógee bi mu mu defee loolu budget bi dem de trente cinq de de de huit à trente six milliards. mu comprendre que trente six milliards capital mu nekk la vitrine d' un nu ñu développer capital avec ce budget là qu' est mu dem jéem a xool. AFD pour capter des fonds dans le marché obligataire dans le marché financier international emprunt obligataire yi ngay gis ni Khalifa Sall di ko di ko wax mais emprunt obligataire yooyu noonu boo gisee tey les villes dans l'Afrique dans la CEDEAO am possibilité lever des fonds dans le marché obligataire c'est grâce à Pape Diop parce que moom moo ñëw woowaa waa Banque mondiale ñu ñëw fii à Dakar pour une mission de six mois ñu évaluer la ville de Dakar dem be conclure ni que ville de Dakar mën na emprunter mën na lever fonds dans le marché obligataire bi ñu ko defee ñu ne ko y a un problème il faut que ñu def une harmonisation des textes dans la CEDEAO mu dem à Paris inviter tous les maires les grands maires de la CEDEAO bu ñu ñëwee toog waxtaan bu mu defee plaidoyer bi gars yi dañ ko taccul ba pare ñu nangul ko loolu foofu la ville yi tàmbalee am fonds pour vraiment euh, euh, suqali seen i localité euh, rafetal seen i localité loolu mooy deuxième phase bi te pour pour rappel pavé yàlla xalifa Sall la yàlla ñuy wax nii Khalifa Sall c'est projet de Pape Diop pavé yi dakaar fii. ah oui loolu il faut que ñu rappeler ko nit ñi c'est un projet qui a été pensé réfléchi par Pape Diop moom moo dem ut fonds yi c'était déjà en 2009. non projet bu mu bindoon teg la wala. bu mu bind teg boo xam ni. génnee nañu fonds yi ba teg ba ñu génnee 500 milliards pour la première phase 500 milliards génnee nañ ko mi ngi nekkoon dans le budget de 2009. ñu commencé war a def benn tronçon affaire bi nekkuloon sax ay pavé le projet c'était pas de faire des pavés le projet en réalité c'était de faire des dallages parce que. dallage ak pro euh, kii lan mooy différence lan mooy différence bi xam nga pavé boo ko jëlee nga installé ko dans un centre ville bu amee jëyee manifestaa yi dañuy jël xeer rek pavé c'est une pierre posée à même le sol. boo ko teggee benn rek danga mën a tegg yëpp mais dal yi mooy xeer yu mag yoo xam ne dañ koy teg kenn du ko mën a teggi loolu moo nekk saa à pour des question de sécurité pour pour pour vous dire que réalisation dafa am ay xalaat yoo xam ne daf koy jiitu loolu yëpp xalaat na ko parce que dafa jëloon exemple sur la guerre des pavés de 1968 à Paris guerre boobu grève boobu noonu bu mu amee biir Paris pavé yu fa nekkoon ci biir Paris lañ jël rajaxe capitale bi donc mu xalaat ni que loolu c'est pas stratégique pour une question de sécurité di def ay pavé civil ñu def ko dallage te dallage bi dafa amoon lu mu àndal dafa amoon par exemple ay équipement mobilier urbain yoo xam ne dafa doon ànd dafa amoon ay ay bancs yoo xam ne dañ ko doon aménager espace vert yi yoo xam ne dañ ko doon aménager am na yeneen affaire yoo xam ne dafa waroon accompagner ces projets là. mais mais nag euh, projet bu bu bu mu commencé gud nga fi waxagul. mais projet bu mu commencé gud nga réfléchir ko xalaat ko jël ah, xaalis koppar gi nga bay ko ci. ci ci budget ci mandat lëm benn projet boobu. waa déet déet man kañ da ngay wax bay ma wax yow yaa ma yaa ma ne lu mu réalisé lu mu réalisé bëri na. dama lay wax pavé yi dama la wax ni que ñi ñaa ngi jàpp ni ak équipe municipale bu fi nekk bu fi wuti Pape Diop moo ko def dama bëgg leeral fàttali sénégalais yi que xam-xam bi xalaat bi ak koppar gi Pape Diop moo ko wut ba ñu jël budget 500 millions dugal ko pour une première phase mu am un retard de 3 ans ñun ñu ngi fay jógee Pape Diop mu ngi fay jógee en 2009 Khalifa Sall ngi commencé pavé en alors que l'argent était disponible depuis boo jegee foofu nga ñëw dans le domaine de la santé. Pape Diop bu muy ñëw ville de Dakar il a trouvé huit centres de santé mu tabax huit yeneen huit centres de santé loolu kese kese kese bu ñu ko yemaloon ci bilan nga comparé à l' actuelle équipe municipale tu verras que y' a pas photo huit centres de santé mu yokk ci huit municipal bu Dakar pour rehausser le plateau médical de la capitale mu ne Dakar war na am un centre hospitalier ñu créé SAMU SAMU municipal de Dakar. sami municipal bi gis nga gis nga nu mu mel. waaw mais boobu nag Pape Diop dafa nekkoon ci nguur. xam nga xam nga. il faut que il faut que yi mu leer bu ñu koy defar defar ñu ko avec cap l' argent par exemple de c' est l' argent l' argent de la ville c' est la ville c' le projet de la ville il faut que mu leer Pape Diop du question nu mu àndoon ak Ablaye effectivement dañu ànd ak Ablaye Wade ànd di liggéey mais moom ci. xam-xamam ci xalaatam dem na ba yokk alalu ville bi ba muy am investissement li ma doon def 36 milliards bu njëkk ba xam nga ñaata lañ doon jël ci 8 milliards yu ñu fi fekkoon 2 milliards lañ doon jël di moins de 2 milliards lañ doon jël pour investissement mais Pape Diop bi mu ñëwee si 36 milliards yi la moitié du budget est destinée à l'investissement loolu moo tax Dakar changé capital. Euh, ñu fàttali mbokk yi yéen a ngi déglu euh, rajo réew mi FM euh, seen émission pencum réew mi tey nag ñu invité Abdoulaye Néné maane moom mu bokk ci parti bokk gis-gis bu président Pape Diop maane yow daal xam nga li nga fi waxagoon mooy Pape Diop si li nga wax yokk na budget beneen bi wax nga fi huit. comme euh, huit centres de santé huit centres de santé municipal de Dakar. l'hôpital hôpital gériatrie bu Wakam ak centre ophtalmologique bu Wakam hôpital bi le premier gériatre du Sénégal laa la wax. d'accord non non il faut que nga ma ma terminer dans le domaine de la santé parce que c'est très important. Euh, le premier gériatre du Sénégal a été formé par le président Pape Diop. moo ko envoyé France avec le but avec l'argent de la ville de Dakar envoyé ko en France pour une formation ñu ñëw ñu ubbi centre gériatrique de Wakam bu nekk fii à euh, bu nekk fii à Wakam. donc ça c'est des avancées ouais, majeures. mais mais Dakar mais Dakar ba pare ba pare ba pare il a rehaussé le plateau médical de l'hôpital Abass Ndao et de Gaspard Camara dugal fa ay équipement de haut niveau de dernière génération nga xam ni boo bëggee faju soxlawul nga génn dem France wala nga dem dans les dans les grands hôpitaux. léegi wàllum culture lan la ci def Dakar. balaa balaa may ñëw ci culture bi. dama ah, bëgg dama ñëw léegi kon yow léegi yow da nga. waaw maane léegi donc xam explique la waaw léegi maane daal léegi dañu a gëmloo waa Dakar. du question bilan mu fi defoon 2000. ah déet déet du question bilan Pape Diop laa gëm woo gëmuloo waa Dakar. Ah. dama bëgg Dakar waaye xam. da bëgg a fàttali. ñu def dama bëgg fàttali. ñu def un peu la comparaison képp koo xam ne nekk nga candidat wala nga nekkoon candidat bëgg a nekkaat candidat li nga fi defoon ñu génnee ko lan mooy sax xalaat. ci bu ndaje réew mais gëmloo nit ñi ne coalition yi fi nekk yëpp Pape Diop mooy bi gën. loolu il faut nga respecté yeneen lu tax ma ne la mooy bu gën. parce que Pape Diop dafa am loo xam ni def na ko fii ci benn mandat mu nekk benn prouesse boo xam ni senegal njaay yëpp a ko saluer. parce que yow bayoo ma ma terminer. bu ko Sénégal njaay yëpp nee naa la def na Dakar deux cent soixante dix kilomètres de de de route de réseau d'éclairage deux cent soixante dix kilomètres dakaar bu takkee leer. c' grace à Pape Diop yow mii bu dee Dakar fekk na la Dak fekkoon na la Dakar en 2002 xam nga ni Dakar dafa lëndëmoon course Pape Diop bi muy ñëw 270 kilomètres de réseau d' éclairage 270 kilomètres xam nga loolu xam nga loolu liggéey bu am solo la 24 kilomètres de route boo demee dans les communes la tali yi ngay gis ci biir communes yi mais c' est le président Pape Diop Pape Diop toogul rek yaa fus foog ni mairie de Dakar affaire sociale la rek sociale yi ñëwaguma ci ah nee naa la dafa jël ci budget 36 milliards. moitié bi yëpp mu déjee ko à l'investissement à l'époque projet bu amoon loo xam ne dañ ko war a tabax à la ville de Dakar Pape Diop dafa doon wootee concours architecture dafay do woo ay cabinet yu bëri concours lañ doon def ku ci gën a xarañ ñu jël marché bi jox la ko déjà pour vous dire xam nga code des marchés publics en 2009 lañ ko tàmbale de en 2008 lañ ko tàmbale Pape Diop moom bu mu jëlee maire de Dakar marché yu mu doon joxe yëpp marché à appel d'offres la pour vous dire combien la personne est sérieuse dans ce qu'il fait et il est connu comme un homme d'affaires vraiment modeste et sérieux nit ñi xam nañu Pape Diop ci liggéeyam ak mandutewam kon nag bu ñuy daal da euh, dañ ko doon diaboliser moo taxoon ñu jëlee ko fi. nan lañ ko mënoon diaboliser diaboliser wuñu ko non non dama ne dañu diaboliser ko de xam nga lan lañ def. Ah. dafa am dañ nekkoon ci benn phase. dañ nekkoon ci benn phase boo xam ni nguur gi fi nekk nii Macky Sall ak ñi mu àndal dafa am benn campagne médiatique de diabolisation boo xam ne dañ ko doon def ci waa PDS ak ci Karim bu ñu demee ba affaire yi kii ba sénégalais jàpp ni que Karim Wade vraiment Ablaye Wade ñu ne noo moom la fi bëgg a teg ñu ne Karim Wade c'est le ministre des terres et des ciels affaire tout ça loolu noonu yëpp nag mu duggoon ci boppu sénégalais yi ba bu ñu ñëwee dëgg mal élection locale 2009 yi ñu ne Pape Diop dañ ko fi bëgg a jëlee teg fi Karim Wade parce que amuñu woon benn motif de campagne pour ne non. Pape Diop liggéeyu fi dara Pape Diop dafa def loo xam ni fii ba léegi boo demee moo fi ne. d'accord mais lu jëm ci wàllum euh, feu feu yi feu de projet boobu euh, projet bi Khalifa Sall wala Pape Diop. gis nga feu de signalisation pour vous dire xam nga lépp tolluwaay la maanaam nit ki sa xalaat sa vision fu mu toll. feu feu yi président Pape Diop moo amoon benn projet boo xam ni c'était des feux intelligents. mais projet yoo xam ne réaliser ko problème la. mais projet déedéet bi projet yooyu noonu c'était en 2009. Pape Diop benn da nga wax ñaari projet yoo xamante ni projet yu mag la mais Pape Diop. def projet dafa yomb. mais ah, wax naa la fi projet yu gën a am projet yoo xam ni affaire hôpitaux yi huit centres de santé ku fa tabax kañ xam nga loolu du lu ndaw mais mënoo defandoo yépp maanaam xalaatom la projet am la maanaam bu ñu ko joxoon encore dakaaru Ndiaye tey Pape Diop bu yoroon Dakar Ndiaye ba léegi kon kenn du xamee. Dakar yooyu loo si wax. feu de signalisation dafa am ay feu intelligent moo nekk dans les capitales modernes gis nga embouteillage yi ngay gis bouchon yi ngay gis nga xam ni des fois sax foo yi ñu koy causé parce que di nga gis feu rouge nekk fii policiers ñëw taxaw di réguler circulation bi yàgg nañ ko fi gis. waaw dafa am ay feu intelligent yoo xam ni. fa nga toog ngay toog di ko régler. fa toog ngay toog di ko régler voie bi fii fii baax na mën nga bay mu jàll. noonu loolu cest loolu mooy développer capital xalaat Pape Diop demoon na ba yegg ci xalaat yooyu. am nañu projet projet euh, parking terrain bi pour régler un peu euh, problème mu. Euh, embouteillage bi ak nit ñi fu ñuy gaare parce que da ngay dugg Ndakaaru Ndiaye doo xam fooy gaare sa oto da nga wër da nga wër foo gaare gars yi ñëw sabo la alors que xam-xam ak xalaat mën na la permettre ville bi yow nga am ay jéego yoo xam ne boo ko defee da ngay renforcer les caisses de l'État renforcer en même temps les caisses de la ville il avait prévu. de mettre en place un parking souterrain à la place de l'indépendance. mais pab Diop tamit euh, bokk na si euh, ñi ñuy wax ne bu Dakar pëccëxoo euh, insalubrité bi fu neex am marchand ambulant lal biir ville bi dakaar Pape Diop bokk na si ñi ko encouragé. c'est faux bu ñu waxee loolu c'est faux Pape Diop bu leen rappel boo boo leen fàttalikoo en 2007 moom moo njëkk commencé déguerpissement de marchands ambulants commencé ko xeex bu métti am Ablaye Wade ne ko bayil. mais terewul amoon na xalaat gis nga euh, moo tax ma ne la xalaat rek mooy jëmale réew kanam gis nga euh, euh, canal 4 bi canal 4 bi. Mm-hmm. mais canal bi gis nga espace espace bi imaginez bu ñu fermé woon espace su canal 4 tout le long du canal ñu fermé ko avec une sécurité nga xam ne nit ñi dinañu dinañu mën a occuper surface bi Pape Diop loolu faisait partie d'un projet de Pape Diop. canal 4 bi ñu tëj ko. dañ koy tëj bu ñu ko tëjee ci kaw. Mm-hmm. dañ fay def mobilier urbain yu rafet. c'était destiné aux marchands ambulants nga xam ni du nekk ay mbaar ñuy takk fii di ñaawal capital bi kuy ut rafet rafetal capital damal nga téye Pape Diop parce que dakaar bu changé visage c'est grâce à ah Pape Diop. projet boobu moom am na solo mooy tëj tëj canal bi tëj canal bi ba pare fi fi bi nekk na boo ko tëjee dina am ñu mën a. lal ci kaw mais xalaat la xalaatu Pape Diop la. te loolu bokk na xam ne réalisé wu ko. waaw mais xalaat boo xam ne réaliser woo ko yow nga def benn mandat. benn mandat la fi def da koy fàtte benn mandat ak li ma la limal ma la ci benn mandat jëlal li ma la fi wax la jot a wax léegi nii nga comparé ko ak koo xam ne toog na fi de 2009 à 2021. léegi nag 2000 euh, élection yi nga xam ne moom la ñu dégmal Pape Diop mooy seen candidat yéen bokk gis-gis waaye nag du nekk loo xam ne dina yomb ci moom ci ville de Dakar. dëgg la ndax Abdoulaye Diouf saar moom ministre la. ba pare maire la. nekk mouvance présidentielle. waaw Barthélémy Dias maire la. waaw ànd ak Khalifa Sall boo xam ne ancien maire de Dakar la. waaw Ousmane Sonko si nekk ci wet gi. waaw wàllu Sénégal ak euh, président Doudou Wade. waaw euh, loolu tamit euh, est-ce que dina yomb si yéen vraiment. xam nga lu tax warul yomb. Hmm. parce que ni ñu xamal Dakar waay li fi Pape Diop def tout simplement ñu yor équipe municipale actuellement ñu ñëw def seen bilan. ñu ñëw def seen bilan parce que Ablaye Diouf Sarr Barthélémy Diaz. ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo bokk non pas c'est-à-dire je vous parle de l'équipe municipale de la ville de Dakar. Okay. ils font partie de l'équipe municipale de la ville de Dakar ils sont comptables du bilan de la ville de Dakar Ablaye Diouf Sarro Barthélémy Diazo ñoom ñoo bokk équipe municipale bi Ablaye Diouf Sarr boo demee euh, euh, au niveau en face la mairie de de de de de de. Yoff ndax nga bëgg si génn Pape Diop amu fay conseil. Oh, conseil au niveau de la au niveau de la ville. am fa conseil. am fa conseil bul fàttee 2009 bu ñu gagné mairie bi ñoom ñun dañoo jaamarla woon ak ñoom boo demee mairie mairie mairie mairie Yoff mooy autopont bu gën a salte ci autopont yi man jël naa ay image bu la neexee ma wan lok ñu may dëggul ñu dëkk Yoff danañ ma danañ dëkk Ouest Foire dëkk Yoff danañ danañ dëggal lu may wax foo tourné mbalit la mairie mairie baa ngi en face yow ah, yow sa buntu kër mais nag mën ngaa wax lu ne Abdoulaye Diouf Sarr mais yow moom euh, gañe ko moom nag jàpp ma ne dina yomb si yéen. mais man la gagné ko waa Dakar ñooy voté waa Dakar ñooy voté man dama ne. koo xam ne mënoo bale sa buntu kër waloo laaj Dakar ñu jox la ko boo demee en face nee naa la foofu yëpp mbalit la. mais Pape Diop jiite na mairie Dakar ay jamono nan la ko mën a laajaatee ko bu koy laaj lan lay wax xam nga lan lay wax waa Dakar man nekk naa fi. juróom benn at lii laa leen defaral Dakar waaye xam ni lii ak lii loo xam ni yàgg nañ ko gis yaakaar ni que keneen moo ko fi def ñu xam ni Pape Diop moo ko fi def parce que lu bëri dañoo yaakaar ni que équipe bii moo ko fi def alors que Pape Diop moo ko fi def il faut que loolu tam mu leer mu leer ci bopp sénégalais yi am na loo xam ne sur le domaine de la culture yaa ma ko doon laajte léegi ni place du souvenir kan moo ko def place du souvenir africain léegi wax ma ville de Dakar ñoom benn benn réalisation bu toll noonu ndax def nañ ko fi ville du souvenir africain Pape Diop moo ko def place fax euh, koy bund xataal emprunt obligataire président Macky Sall ant moo di ko bund xataal xam nga yooyu noonu yëpp ci dugg man de toute façon li ma la wax mooy ñun am boo xam ni xam nañu liggéeykat la sénégalais yi xam nañu liggéeykat la Dakar waaye xam nañu liggéeykat la léegi nag xam nga lan moo ci des. am nga si confiance daal. mais bu bu rëy xam lu tax parce que nit. nit yi nit ñi ñooy ñooy jugé nit ñi nag information la ñu amul te information boo xam ne moo waroon dem ci nit ñi presse bi ñooy toog defar seen candidat ne kii moo fi baax kii moo fi gën parce que dafa am nu mu demee mais nag ñun également dinañu jóg xamal Dakar waay que li ngeen yaakaar ak réalité bi bokkul. d'accord mais est-ce que euh, Abdoulaye Néné Mané yow nga nekk membre. ci euh, euh, commité directeur bu bokk gis-gis euh, yaa jiite ndaw ñu bokk ci bokk gis-gis élection locale yi enjeu yi dafa bëri léegi yéen est-ce que natt ngeen biir ak biti su Pape Diop ñàkkee élection yi au ville de Dakar est-ce que natt ngeen lan la ko mën a yàqal tey ci carrière politique am. ñun yaakaaruñu ni Pape Diop dana ñàkk ville de Dakar xam nga lan la. lépp na naa la communication moo daaneloon Pape Diop communication moo mën a defaraat Pape Diop jëlaat ville de Dakar c'est très simple Pape Diop du moo ko daaneel du leneen moo ko daaneel communication boo xam ni c'est formaté en toutes pièces Pape Diop perte ville de Dakar ñun nag danañu defaraat suñu communication indi proposition Pape Diop ba pare woon Dakar waay Pape Diop lu mu def ba pare nag ñu bay dakaar waaye ñoom ñu def une comparaison comparaison bu objectif bu objectif képp ku ko def da nga xam ni Pape Diop reste et demeure le meilleur maire de la ville de Dakar. mais nag euh, xanaa nag wax dëgg yàlla jàpp naa ne nag euh, maane seen campagne moom du ngeen fi ñëw bëgguñu fee wax loo xam ne ba Pape job di nekk maire la il faut que nag fi àdduna toll xanaa ngeen am yeneen proposition yu bees. mais bañ a bañ ñoo bañ ñoo bañ a ngar daajoo rajo yekkali naan Pape moo fi def pavage feu de signalisation déet déet déet nit ku nekk. booy def na ko fi ba mais def na ko fi ba pare mais mais def na ko fi ba pare mais ñu fi dëkk xamuñu kan moo ko def yoon la ñu xamal leen kan moo ko def un point c'est tout léegi nag sa vision pour Dakar xalaatam pour dakaar xam nga ba ngeen ko fay def xam ba ngeen ko fay def. da ngeen waaw ma ne bu ñu ko fay def am na ñoo xam ne juddu gu ñëwoon. d'accord léegi ba ngeen ko fay def. waaw da ngeen a nekkoon maire nekkoon bokkoon ci bokkoon ci euh, mouvance présidentielle. waaw ah loolu ngeen defoon. waaw amoon ngeen possibilité def ko. pourquoi léegi non. ma ne la Mamadou Diop Mamadou Diop nekk na Mamadou Diop man la Pape Diop remplacé nekk na ville de Dakar quinze ans. waaw d'accord léegi xaaral ma ñaari at wax naa la budget bi fan la ko bay. d'accord léegi xaaral ma yegg la te pourtant ci nguur la nekkoon. bu mu fiy jógee Dakar dafa lëndëmoon course. waaw d'accord mais dama la bëgg xamal ne la li ngay wax nii ne ko ne ci nguur la ñu bootu woon moo tax ñu am yenn privilège privilège mënul ñàkk mais dama la ne ci kopparu. ville gafaw ndakaaru d' accord la ko Pape Diop defaree d' accord léegi loolu léegi li may wax mooy euh, Pape Diop am na lu mu réalisé woon damay bañ ngeen bëgg a gëmloo waa dakaar rek réalisation yi Pape Diop yooyu naam am na solo mais tamit est ce que tey Pape Diop mi jiite woon Sénat jiite assemblée euh, national ñëw nekk euh, maire de Dakar est ce que Pape Diop moomu tey bokk na ak Pape Diop mii nga xamante ni tey toog na lu yàgg nekkul ci nguur est ce que Pape Diop moom bu ñu ko dénkoon ville de Dakar dina am euh, yeneen taxawaay wala yeneen projet yoo xamante ni tey euh, dina mën a dina mën a dina mën a changer capital bi. xam nga moom moo tax ma ne euh, Pape Diop faw ñu ñii di ko jege parce que booy wër xam-xam ci développement ak lii ci lii jëmale jëmale réew kanam barki Serigne Touba boo gisee Pape Diop rek teel. Hmm. du moromu gaañi. kooku je le en toute sincérité. moom Mbaye de dégg naa xam na ko moom mbay ma ne la. domaine boo munti jël laa la wax mbay mi rek mbay mi rek mbay mi rek man li ma jege Pape Diop laa la wax li ma la ci mën a wax ministre de l' agriculture mënoon lu ci ko wax. ci mbay mi ci mbay mi rek. loo wax mu ak ab jege rek laa wax di toog di déglu Pape Diop li ma la mën a wax lan mooy suqali mbéyum Sénégal. ministre de l' agriculture kon kon yéen bëggu leen réew mi ndax yéen musuma gis ngeen def proposition. ci mbay mi mbay mi def nañ ci proposition ba tey Pape Diop yàgg na wax ma Sall bu mu taxawee ne. dana ñu am autosuffisance en 2017 président Pape Diop moom kese moo génn ne ko mënul nekk. lu tax mënul nekk. parce que dafa am loo xam ne mooy jiitu. dafa am mécanisme yoo xam ni foo ñu mettre ko en place. est-ce que wax na mécanisme yooyu mais bien sûr mécanisme bu ci jiitu mooy la maîtrise de loo munoo jë bee bunoo bee ci ñetti weer bëgg a bëgg dundal Sénégal mënul nekk nee na il faut que ñu fexe béykat yi am ndox 12 mois sur 12. waaw d'accord atum lëm béykat yi di am di am kii ba pare. ñu emblaver le maximum de terre irrigable. d'accord léegi jërëjëf euh, Ablaye euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM léegi yéen élection locale yi wax nga fi ne Pape Diop mooy candidat bi gën euh, ci ville de Dakar yow nag sa gis-gis la sa xalaat la mais est-ce que Dakar waaye danañ gisee noonu danañ xalaatee noonu léegi. Ah, Dakar waaye xam nga lan lañu lan lañu lan lañu lan lan moo nekk suñu diggante mooy ñu xamal leen li fi rappeler leen. lu fi eh, Pape Diouf def non ma non maa ngi ñëw rappelé leen lu ci li fi Pape Diouf def ba pare wax leen. gisu Pape Diouf li mu bëgg a def ci ville de Dakar. ok damaa bëgg ngeen di wax li ngeen bëgg a def. mais bañ a bañ a rek. bañ a ngooy loolu man man kañ Pape Diouf buy ñëw dafa ñëw ak ay affaires yu bees. yoo xam ne man jo je lui lestere le privilège. mu waxal ko Dakar waaye. Ah, parce que surprise bu mag léegi yéen euh, ndax bokk gis-gis. am na liste ci ci ci ci ci ci ville yi euh, wala bokk gis-gis tey am na ay liste. Euh, ci ci ci commune yëpp wala ci département yëpp. Euh, ci département yi on est prêt. Euh, région de Dakar. mais bien sur Bokk Gis-Gis est partout. département yi Pikine ak. département de Dakar Bokk Gis-Gis partout département de Pikine Bokk Gis-Gis partout Guédiawaye moo ma dese leer. Rufisque. Rufisque on est partout. commune ville de département Dakar. waaw maa ngi lay rappeler ne la département de Dakar ñun ñu am nañ fi amoon nañ fi amoon nañ fi ñett ba ñeenti maire. région de Dakar. région mais waaw waaw d'accord pour vous dire mais à part à pouvoir à part pouvoir ban beneen parti mu ak ak PDS ana beneen parti bu am beneen mairie mairie fii si Dakar. d'accord léegi. waaw léegi xam nga tey par exemple tey euh, Abdoulaye yéen bokk gis-gis. dafa am euh, communes yu nekk fii euh, ci département Dakar mhm. par exemple tey fu mel ni Médina est-ce que am ngeen fa représentant nga dem fu mel ni tey Jëppal Derkele. Mhm. fan point E nga dem fu mel ni euh, Wakaam Wakaam bokkutoon si yéen wala dafa wala dafa. loolu laa la wax Wakaam ñun ñoo ko gagné woon ci bannière boo gis avec Samba Bathily Diallo. Ah, dafa dafa dafa transhumé. <laughs> mais léegi est-ce que nag euh, xalaat ngeen est-ce que nag euh, Ablaye yéen commune yéen départ dafa mel ni yéen ville bi rek ngeen bëgg a gagné est-ce que commune yi tamit. xalaat ngeen a gagné non non non xam nga. on est en train de parler de la ville de Dakar moi je viens parler du candidat. de Bokk Gis Gis. à la ville de Dakar scrutin bi léegi dafa changé ni ngay voté pour par exemple les maires au même moment on pour les conseils au même moment on vote pour le maire de la ville de manière directe yaa ngi dégg de ce fait il vient se présenter pour être candidat à la ville de Dakar léegi nag ñun lu ñuy liggéey mooy Pape Diop mu jël ville de Dakar changer xar kanamu Dakar. mais yéen kon yéen daal euh, bu ma leen déggee mooy yéen da ngeen bëgg a defal campagne Pape Diop am nañu suñuy candidat yoo xam ni ñoo ngi concourir. seen i commune seen i commune mais du ma dugg ci détail yooyu noonu parce que commune yi 19 communes commune la. Mhm. mais dama ne ne c'est-à-dire suñu candidat pour ville de Dakar ñun moo ñu gën a soxal te loolu moo ma indi fii loolu moo ma tax a tax a jóg. te jàpp ngeen ne euh, man ngeen cee am ndax dañ koy gagné incha allah. d' accord léegi euh, dégg naa seeni liste yéen bokk gis-gis euh, xaw ma Kaolack ak naa ñu ne dañ leen. rejeté effectivement. loolu euh, démb laa yegg information bi xam naa ni euh, dinaa gën a gëstu pour euh, xam lan moo waral lan moo waral loolu maa ngi gis également yenn liste ci opposition yoo xam ni rejeté nañ leen mais ba léegi dégguma fenn fu ñu ne rejeté nañu liste bu Benno Bokk Yaakaar lu waral loolu nag ay gëstu la parce que yaakaar naa ni ni ma déggee par exemple ñoom Bougane di wax que ni. Euh, bu ñu demee déposer seen liste avant la date de avant l'heure de clôture ñëw nañu pour bëgg a rectifier ñun ñu bañ leen ko nangul ni ma jàppee loolu nu leen ko bañee nangul peut-être am na préfet yoo xam ni waa APR bu ñu nekkoon dans ces difficultés là danañ leen danañ leen permettre pour ñu ñëw def seen correction avant avant la leur l'heure de clôture. d'accord mais xam nga tamit euh, politiciens yi vraiment yéen man euh, am na ñoo xam ne seen mbir jaaxal na ma yéen moom yéex a teel ngeen a déposé mais tey par exemple tey. Euh, loolu manque d'expérience la wala lu xew ndax tey par exemple tey yow su dee yow yàgg nga dem ay élection am nga ay expert ñoo xamante ni tey seen xel màcc na jëm ci wàllum yoon ñii seen xel màcc jëm ci wàllum wàllum élection yaakaar naa ne pour nga defar benn liste wërta xaar bañ ne dépôt yi tey minuit la nga fay dem ay vingt 23 heures ak ay vingt 22 heures. waaw loolu nag euh, comme li nga wax rek effectivement dama koy dëggal c'est-à-dire euh, euh, préparation moo ñu conduire toujours à ça parce que également y a code électoral boo xam ni vraiment ñëpp dañ ca war a tënku. code bi lu mu wax rek loolu la nit ñi war a war a doxal mais dama ne rek man daal je foor que dans toutes les collectivités locales APR déposer seen liste te du am benn siqi sàq du am benn benn benn benn problème. waaw non mais xam nga tey par exemple tey APR ni ñu mënee euh, créer seen liste. ndax euh, foofu soo xoolee liste benn bokk yaakaar la mouvance présidentielle la ñoom ni ñu mën a calmer seeni militants ak ni ñu mënee jëlee ay nit dugal leen ci parfois tey parfois boo xoolee liste yi ñuy rejeté mooy ñoo xamante ni tey dañuy dem ba sa ci pandaw ga yéen a jiite. Euh, problème kii maa jiite kaa mooy jiite am fii bala ngay dem di wuti ay nit photocopie carte d'identité di leen dugal. loolu aussi retard mën na am mooy ku nekk ak ses problème rek moom loolu laa lay wax ni ma ne. y a de l'impréparation. ok am na impréparation ñenn ñi peut-être mën nañ ne immaturité. Mhm. yaa ngi dégg mais man dama ne loolu bu amee bu dee préfet am na possibilité. mais ñoo xam ni vraiment dañoo nekk ci erreur wala mu am benn erreur bu ndaw boo xam ne mën nañ ko corriger avant la l'heure de clôture je pense que préfet mënoon na yëkkati téléphone am woo ñooñu pour ñu ñoo apporter des corrections. d'accord mais trahison bi ñuy faral di dégg tamit euh, ñoo xam ne dañuy yóbbaale cachet yi ñi bañ a ñëw loolu ñu gis ko ci yenn coalition yi yow lan moo si xalaat en tant que no man yaakaar naa ni par exemple koo xam ni dañ la jox par exemple ay documents administratifs pour nga dem déposer ko. nga génn ñu fekk la ci euh, këru benn opposant ba pare nga euh, benn benn benn pouvoir nga génn def conférence de presse ne léegi man maa ngi remercier Macky Sall diw laa àndal yaakaar naa ni kooku war nañ ko topp ci yoon. waaw war nañ ko topp ci yoon. d'accord léegi yéen. Euh, ba pare ba pare ba pare préfet bi foofu war nañu xoolaat la situation de cette localité là est-ce que dañu war a invalider liste yi parce que déposé wuñu gis nañu lan moo waral déposé wuñu je pense que dañu war a topp kooku ba pare remettre les les les le les gens de cette liste là dans leur droit. mais lu jëm ci wàllum euh, violence politique ci Sénégal. élection locale yi ban appel nga si def. appel bi mooy euh, ànd ak dal ñëpp mel ni président Pape Diop ñëpp bu ñu meloon ni moom doo dëgg xaste. doo dëgg doo dëgg saaga. doo dëgg dóor du mer sedd du mer mooy lan sama olof setul nag waaw mais dama la bëgg a xamal ni que rek donc ñëpp dañu war a ànd xam ni Sénégal ñoo ko moom. Euh, débat bi euh, combat bi dafa war a nekk le combat des idées. mais pas le combat physique la confrontation les injures parce que affaire bi dafa commencé jël yeneen proportion loo xam ne mënuñu ko régler sur des plateaux dañuy toog ci internet bi di saaga yooyu yooyu dafa war a jeex pour man loolu nit ku am personnalité doo ko def moo tax ñun bokk gis-gis doo ñu gis ci yooyu doo ñu dëgg ci yooyu parce que am nañu njiit bu mat njiit boo xam ne bu la gisee ci yenn yi sax yow dangay ngay rus. mais xam nga tamit tey yéen bokk gis-gis euh, ndax élection yi am na nu ngeen si génnee ak euh, ndam lu mag am na fu mu leen mën a yóbbu élection présidentielle deux mille vingt deux mille vingt quatre incha allah. mais su dee tey euh, ñaana lu ma leen ko ah bu dee tey par exemple tey dix neuf communes yi ci département Dakar gañewu leen ci benn commune Ablaye. gañewu leen ville de Dakar. boobu tamit vraiment dayo politique Pape Diop dina wax ñeeku bu baax a baax dina nekk en jeu. waaw mais avenir politique Pape Diop moo nekk en jeu. non non avenir politique Pape Diop. moo nekk en jeu non. nekkul en jeu déedéet nekkul en jeu xam lu tax. Uh-huh. parce que euh, euh, Pape Diop nit ku constant la dans sa position mu nekk nit ku véridique nit ku gëm lu muy def xam nga Sénégal il faut que ñu am benn affaire boo xam ne foofu ñu dugal ko suñu bopp il faut que ñu il faut que ñu am. nan la ñuy nan la ñuy defee profilage pour choisir un candidat pour les élections présidentielles waruñu waruñu topp mumbaay bi rek emporter ñu benn dynamique ñëw rek ñu ne non lii la déedéet ça nous est arrivé avec Macky Sall bu muy ñëw ñëpp a ñëw bootu ci gannaawam ne moom la moo fi ne mais tey mi ngi nii ñu àndoon ak moom ñëpp bay nañ ko. loolu loolu moo fi demee mu am ñoo xam ne nag nekkoon nañ ci opposition bi nekkoon na ci pouvoir dem dem dem fekki ko. donc il faut que ñu xool balaa ñuy xool balaa ñuy votel nit foofu ñu xool profil nit ki xool le passé de la personne xool bu dee dënkoon nañ ko ci réew mi dënkoon am na lu ñu ko dënkoon ni mu koo gérer. yooyu yëpp ay affaire loo xam ne foofu ñu xool ko ah, d'accord léegi waxtu wi euh, mu ngi jeex euh, suñu euh, kii bu mujj mooy Pape Diop est-ce que taxawaay bi mu war a am ci ay militant am Euh, reconnaissance bi mu war am ci ay militants ni mu war a encadrer cadres yi nekk ci seen ginnaaw di leen dooleel yomba gis est-ce que loolu ma ci Pape Diop. Pape Diop ku yomba gis la mën naa ne loolu man mën naa ko témoigner. Pape Diop mën naa ne xam boo gis gis man mën naa ne c'est le seul homme politique boo xam ne dana xëy bureau di recevoir ay nit. du ko def tout le temps nag parce que c'est un homme d'affaires a pas la politique. ku nekk da am sa beneen liggéey. c'est-à-dire nga ñun suñu parti dafa am benn est-ce que accompagner militant mais accompagner militant yi mooy mooy lan. mooy accompagner militant yi. mais moom koy def yëg militant yi. bu militant yi xewlee mu yëg ko. waaw mais bien sur Pape Diop militant yi. xam nga xam nga xam mbir mi gis nga mënoo nekk njit il faut que lenn ñu nangul ko président Pape Diop. Mhm. mënoo nekk benn njit jiite des milliers de personnes ku xewle nga dem fa mënul nekk. Ah. boo demee ci kii xew kii demoo ci xewu kële. dañ naan ñëw na c'est-à-dire Pape Diop dafa mot njiit lu muy def mu ngi koy def ñi muy lu mu mën a dimbale du génn ci biti du ko wax hmm. du génn ci biti du ko wax lu muy def nag pour parti politique bi mu ngi koy def Pape Diop siège bi rek xoolal siège bi rek fu nekk suñu parti donc il a fait il a de choses pour le parti et beaucoup de choses pour les militants waaw loolu moom sa xalaat la yow yaa nekk si parti bokk gis man nekkuma ci bokk gis-gis mais man gëm gëmuma ne ah la sama ah, xalaat munoo bañ a ci parti bi ba pare bëgg ma wax loo xam ni ma. non non xam nga loolu sa xalaat la. mais comme man maa nekk ci parti bi. nanga nga téye man li ma la wax. non téye naa li nga ma wax. waaw mais man damaa gëm ne Pape Diop. Hmm. Euh, taxawaay ubbeeku bi mu war a ubbeeku ci militant yi des na moo xam cadre moo xam jigéen ñi. Euh, non non sa yàq loolu sa xalaat mais sa xalaat la léegi nag man dama ñëw indil la <laughs> réponse ne la man damay assister Pape Diop ci ay audience waaw Pape Diop des fois dana xëy 11h. di recevoir bi 14h. ok barki Serigne Touba. léegi nag wax ma beneen leader bu ko fii def. waa léegi euh, jërëjëf Abdoulaye Néné Mané waxtu yi jeex na ñoo lay sant la gërëm. jërëjëf jërëjëf Makhtar maa ngi lay maa ngi lay euh, remercier encore une fois Abdou Khadre. Euh, ci invitation bi euh, vraiment ci occasion bi ma may pour ma mën a wax si sama président. wax si suñu parti. jërëjëf euh, Abdoulaye Néné Mané mbokk mbokki mooy coordonnateur de la jeunesse de Bokk Gis Gis nekk membre du comité directeur membre du secrétariat exécutif national moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h mbokk yi Abdou Mamadou Diaw Diall moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm jàmm.